da nga doon daw wala. non maanaam non non bu ma daw bu mboor xam nga bu maanaam yoo xam ne moo gën a gudd diinu moo gën jamono ñu si diini. Mm. dañ doon xëy trois heures dem diinu mboora yi ñëwaat. Mm. nekk si contact yi deux séances def ko noonu. Mm. Ah, ah, dégg nga li Ama wax. Mm-hmm. moom nee na li mu privilégié woon mooy. Mm-hmm. mbër mu amul doole sax du la supporter. Mm-hmm. dégg nga nee na bi ngay bëreeg ëmma. Ah, ëm la bëggoon mu daan te am la bëgg mu daan mais dafa tegoon ci yow parce que gis na forme bi nga indi woon. kon daal ndekete mbër doole mbër liggéey. oui c'est vrai comme ni ko waxee dafa ñàkk keñaan rek xam nga comme li ñuy wax suñu adversité rek benn tàkkusaan lay doon. Mhm. mais bu jeexee ñun ñëpp xamante nañ kenn yéenewul moromam safaan. xam la mhm. man mii Moussa dugg Pikine wallaahi la azim am foofu benn coow lu ndaw moom moomu njëkk a woo dana wax woy mbër dégg naa lii mais woy ñu ngi lay mosoo ak yooyu wallahi li ma lay wax ni yàgg na xaaju mhm. ñoo kii ay bëre sax amo comme ni ma la wax ay adversaire lañ pour benn tàkkusaan mais après jeex na waaye bu jeexee jeex na xam mhm. te li mu fu mu ko jàppee foofu la mhm. sportif foofu rek nga ko mën a qualifié waaye liggéey mooy may comme ni wax yàgg nañ daje dinu golf ñun ñëpp boobu ay booy lañ yàgg nañ daje dinu golf technopole bi foofu quoi xam nga vraiment ba tax na liggéeykat la mais bisu am du bisu ñàkk man sama combat ak Bombardier noonu la. def naa lépp lu ma am xool ba naa ne sax damaa naagu ci combat boobu. ndax foogoon naa ni di moom bi tey dem na parcelle. Hmm. c' est ma dem mu demee noonu mais sport la ay xale lañ da ngay gën a liggéeyaat yenn defee yi day def mbër. mbër mbër. loolay def champion que da nga ciy jugee isam la am leneen lum la dolli. ba tax na gën a yokku liggéey bi xam ma yàlla defal ko ji kanam yëpp ay xewal. di ci jaar di ci nuyu sama copain moom dafa ñëw rek aju mystique bi des nii sama copain li ngay ma ni di ko nuyu waale quoi waaw waaw non bëgg ah, Modou Modou dama bëgg non non man maay dem man maay immortaliser ko père Bakhoum kaay taxawal fii taxawal fii ñu immortaliser bés bi taxawal fii. ça c'est beau Lamine dama jox ko loxo jox ko loxo. dama ne moom moom du làmb ku ci dugg seen diw baax yi lan oh. moom. diggante mbër ak ménager ak amateur. bu yóbbu ci génn rek tey mooy tey suba nekk suba. lii dafa rafet xoolal rek gis nga de. Modou Lo mi ngi wax. ba ba def allusion ci père Bakhoum. jóg ne maay dem nuyu ko ama waaw. na ba na baax gi la ni ku baax. waaw. dina buy waxtaan. wala muy def dara lu si prendre attention. mu naaloo per baa xam gor la ku baax la. ah si yéenewul nit dara dara dara lu ñaaw. Mm. xëy na tamit mbooloo. problème lamb la ba muy wax loolu nag nit ñu ne wax dara sax doo si doo si doo si. doo si rendre compte waaw comprendre si di dagg tamit wax leneen ak leneen waaye ñun yaakaar naa mbooloo musul manque respect kenn. déedéet si àdduna non non comprendre kon père wax tamit nit ku baax la xëy na làmb leen doon jaay làmb bi demee nii waaw ñu ko defee noonu la wax dëgg yàlla ñu sant bu baax mais Lamine wax yéen ñi ay sànnante xeer la mu la maanaam làmb ji maanaam day bu mu yegg ma ne yooyu yëpp la cee bokk dëgg la muy lee influenceurs yi nekk ci réseaux sociaux yi. di wax muy supporter am yi manager am waa Pikine. Mm-hmm. muy waa parcel mm-hmm. maanaam dayu bu làmb ji yegg. ñoom la. waaw ginnaaw promoteur bi. Mm-hmm. mais ñoom dañ cee jouer rôle bu doy waar. am importance parce que ku nekk surtout moom làmb ji maanaam ci lamb ju mag date bi ñu ko jàppee. Mm. defe naa musul am ci lamb ju mag. déedéet lamb ji moyen deux mois defe naa la ñu ne date bi. Mm. le temps bi la. Mm. début bi sax gars yi doon wax ay dina am ak du am. mais dem nañ ba un mois maanaam ci kii bu bu gàtt. lamb ji am promotion bi nga xam ni. maanaam dafa mel ne. Sénégal loolu rek moo fi programme xam mais nag comme ni mu wax muy supporter am ay supporter Modou looy xam nga. ak influenceurs yi reporters yi mm-hmm. journalistes yi mm-hmm. maanaam yóbbu nañ ko dayo bi nga xam ne tey làmb ji fi mu toll ñoom dañ ci ah, mais mais Modou Modou